conférence thème opposition ak seen tolluwaay ci Sénégal ci bantay tànk ak damantay xes yam ci seen biir ñoom ko jëkk politique gi bu saxee ba wéy gisuma leen mbaaw te yàgg nañoo dégg ñu naan luy naaw lu ne say donc di boobu fa nga jëm soriwul booloo gi ñàkkoon ci seen biir dong doyoon na sëkk xaajaloo waaye bu ñu demee ba boole ci lu kiy wàq kii suul Macky moom di doxal te bés bu leen sësee ci miir bi du ngeen def lu dul daw uti wollu ci askan wi di sàkku ci ñoom ñu génn xeex kenn du leen faale xam leen ko balaa ma ay jooy jàpp waa Pastef di dal ci kaw waa réew mi ñu koy duutante ci seen biir waa gëm sa bopp di tontonteeg Pastef te yàggul dara amagul ñetti nawet bi ñu fi àndee ñoom ñëpp di xeex Macky Sall naan na fi jógee jàpp leen ni ak nii ngeen di doxalee xaaja gu fee jóge te bés bu ay pexeem sottee moom Macky Sall ngeen xam ne lépp dëgg la dina leen dëggaate jaar ci seen kaw xëcc ci troisième bu dikkul mu puus watey local yi puus watey député yi puus watey njiitu réew mi wax ji jeex mu dellu ne faax te coow di jib ndax moom ci boppam moo leen gën a xam ni fii di Sénégal naayal fi troisième mandat yomb fi donte am na ñoo xam ni moo sëgg ci ndox mi defam ko naan la ñu yemale waaye bés bu ñu leen yóbboo waar ñu waaru ndax li Macky Sall wax fépp ci ne du mës def troisième mandat bu doon ab paan la ñu ne teeñul ma ngay rembat dëgg la ni opposition xaajoo ci Sénégal du fi gulet waaye fii ñu fi yegg tey musula am ñu bokk genn gaal bu kii joowee jaar fii kii joow jaar fee ñoom ci seen bopp ñoo la gën a xam ni gaal gi du dem fenn waaye ndokkee yàlla ba ñu leen dénkul sunu gaal gii di Sénégal ñu mënul a déggoo ci opposition bi amee wu ñu benn ndombol tànk bu ñu jiite woon réew mi ana fan la ñu koy waxee du ma wax la Senghor waxoon Abdoulaye Wade ne bopp bu attanul karaw du mën a attan am réew waaye ñu ne ay opposant lañu te ànde ndakaaru gii rek dem ba jam ñaajo mënuñu ko ndax ay xiiro ak ŋaayoo ci seen biir ki gis-gisam yam jam ñaajo moo leen tane foofu askan wi lànk leen ba ku leen lànk bañ leen bu leen féetewoo tàccu yi saaga yi xaste yi sos yi ak xeex bi ubbi leen seen i gët te xam ne ñii naan leen pale lañ leen jëmale ñi ci ëpp ci ñoom waxoon naa leen fii ne leen réeroowuñu benn yoon ak ñàngal ñii dañuy mëq te ni mut ñii di mëq tey mbel mbel yi te la ca kanam raw li gët wasalaam ba beneen conférence